léegi xale yooyu nga xam ne ñoom dañoo ne ci daara te daara yooyu mooy seen kër te daara yooyu duñ fa xewloo dañ fay sub internat yeeg yenn yi nga xam dañ fay jógee di dem di yalwaane te dugg boobu ñuy dugg ci kër bu ne dugg service bu ne dugg ci marché bu nekk mën naa jur di laawaane ñu ni comme gis ñu kenn ku ci jéem dara ñun lanu war mooy taxaw ci li ñu suñu xel jox mooy nañu def waañu daara di leen dimbale ñu xew kon bu fekkee dafa am ministère boo moo yoroon loolu la ko war mooy nañu waaw góor gis ñoom bi yaayu daara yi ak ak bàjjen wax ne ne waaw kumba ba seet gafa ko koo xam ne ñoom moomuñu ñu jël gafe ko boobu seet nan lañ ciy jàppale waa Thiès jàppale ci waa Ziguinchor jàppale ci waa Kaffrine jàppale ci waa Sénégal yépp loolu moo leen war ñoom taxawul ñu ay ministère ci dëkk bi pour ay xumbal ak événement yi leen su xewee ñu dem solo ba jekk taxaw fa di wax pour bu nit ñi soxlaa ñu taxaw ci seen wet moo tax ñu def te Sénégal musul am situation bu mel nii gisaguma ci àdduna bi situation bu toll bu nii ci benn jamono bu gàtt bu laal moo ñëpp bu amandoo conséquences yu toll nii kon boo taxawul ci nii ci jamono bi kañ nga ciy taxaw au lieu de cela li lay won ni la sax ñoom lañ doon jël ci dogal mun ñu ko assumer mooy kilifa ga nga xam ne moo ne ca ministère bi moom jëlu ko taxawul ci kanamu nit wax dañoo yebal ya, ab secrétaire général loolu moo fi am parce que am na loo xam boo koy def da ngay làqatu mais bi dañ lay wax ne dañoo jóg pour aar xale boo diiree këyit ba ca da ngay gis dañ naan la yi bokkul dafa am xale yoo xam ne bokku ñoom daara daara tane ci mbedd mi xam nañ liggéey boo xam def nañ ko depuis près de 6 ans ba ñuy am chantier wu kër xale mais dafa am xalé yo xamné dañu nekk ci dara légui nak yow su fekkee da ngaa jóg nga ne léegi damay delloo xale yi seen yow xamoo xalé yi fuñ jëm defoo benn équipe pour xam fan la xalé yi jógee foo leen yóbbu yow xamoo daara yi fa nekk xamoo daara yi ñaata taalibe ci nekk daara yi xamuloo taalibe yooyu ci nekk fan la ñu jógee boo nee da nga leen di yóbbu foo leen di yóbbu ak moo leen di ci moment bii nga xam ne dañoo wax ne ah, déplacement yi baaxul yow xale yi am nañ ko wala amuñu ko ñoom mën na noo jóg nga testé leen tey balaa ñuy dem ca ginnaaw suba ba ñu am ko wala nga jël yóbbu leen ci kër goo xam ne bu ñu fa yeggee ñoom dañ ko dañ leen ko fay jox donc est-ce que mën ngaa jël 552 communes muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak ñaar yoo xam ne fu ne daara am na fa ay xale am na fa nga ne fu ne da nga jële jëlee nit yóbbu fee ci moment wu crise bi ñu nekk amul sens li am sens mooy moment bi ñu nekk nan la fexee ba fat ñëpp ñi mën a fatu seen kër fatu seen kër ñi amul kër nekk ci daara ñu fat leen ci daara yi jàppale leen suñu xalif généraux yi loolu la ñuy wax xalif général Tijaan loolu la wax xalif loolu la wax

seet lay njëriñ ca moom nga di ko defee fa mu newul waaw te Sénégal maa ngi lay waanal kilifa bu man manti nekk képp koo xamante ne mi ngi bëgg a jóg jiñ la ci kaw daara yi jàppalewul man maa la ko loolooy dëgg te bu ma waxee daal mooy bépp bërëb boo xamante ni ñi nga fay toog di fa yar ay xale di leen jàngal ngir ñu xam seen diine dañu ñu nekk nit maanaam noonu laa mën a def ba ci jàng bi noonu la amee ay bërëb yu ñuy waajale ay xale yoo xamante ni pour ñu xam seen diine la ak pour ñu mën a nekk nit te xam sa diine kenn ku ci nekk boo ko defee ba pare nekk nit loolooy permettre société bu mu